sëriñ Mouhamadan Mbacke sëriñ Mouhamadan Mbacke mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1911 ci dëkku maamam boobu nag di Mbacke Kajoora ci dëkk boobu nag la feeñee jamono ci atum 1911 nag ci mois de décembre ba tombeek nag waajuram sëriñ Touba Xaadim Rasuul nekkoon nag ci suuf soosu nag di ca yéen joloofa muy doomu maam Ceerno Ibrahima Faati Mbacke Ndaamal Daaru ak soxna Mariama Balla Silla sëriñ Touba nag Xaadim Rasuul nag moo joxe ndigal ngir ñu tudde ko nag ngën gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa am na nag ñum bokkal nag soxna Mariama Balla Silla ak maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ñu mën cee ràññee nag sëriñ Abdul Xuddoos Mbàkke ibnu soxna Mariama Balla Silla ibnu maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru sëriñ Moodu Abib Mbàkke ibnu soxna Mariama Balla Silla ibnu maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru soxna Assu Ceerno Mbàkke bintu soxna Mariama Balla Silla bintu maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru soxna Aminta Ceerno Mbàkke bintu soxna Mariama Balla Silla bintu maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ak moom sëriñ Mouhamadan Mbacke ibnu soxna Mariama Balla Sill ibnu maam Thierno Ibrahima Fatim Mbacke ndaamal daaru ñeent nag la bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen ak moom nag muy juróom ngir xamale leen nag ñooñ mu bokkal waajur wu jigéen nag ñoom ñooy ñan sëriñ Modou Habib Mbacke moom soxna Mariama Balla Sill ak maam Thierno Ibrahima Fatim Mbacke ndaamal daaru moom la maam Thierno Ibrahima Faati joxoon nag dëkk bi itam nag di daaru moxti ginnaaw nag bu sëriñ Moor nag génnee àdduna doomu ndeyam ji nag di sëriñ Abdul Xuddoos Mbacke nekkoon na imaamu daaru moxti nekkoon na itam nag ñaareelu xalifa maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru taxawaay bu yaatoo yaatoo itam nag la amoon itam nag ci dëkk bi itam nag di daaru muxti soxna assu Mbàkke Ceerno bi mu matee dem kër cheikh Mouhamadul Faadal Mbàkke nag lañ ko jébbaloon mook cheikh Mouhamadul Faadal Mbàkke nag am nañ ak njaboot ñu man caa ràññee nag soxna abi Mbàkke bu cheikh Mouhamadul Faadal Mbàkke soxna abi Mbàkke moomu nag bi mu matee dem kër sëriñ Abdourahman Mbàkke moom sëriñ Balla Coro moom Mamor Anta Sali Mbàkke nag lañ ko jébbaloon ba tax na mook sëriñ Abdourahman Mbàkke nag am nañ ak njaboota ñu mën caa abi mbàkke ak sëriñ abdourahman mbàkke faye woon sëriñ abibullahi mu bokk ak sëriñ tuuba xaadim rasul nag waajur wu góor ak waajur wu jigéen ak ku ñuy wax nag soxna aminta mbàkke ceerno di doomu soxna mareema bàll sill ak maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru moom nag bi mu matee dem kër sëriñ moo moodu busa mbàkke moom maam moor jaara moom maam moor anta sali mbàkke nag lañ ko jébbaloon ñii nag la sëriñ mouhamadan koso mbàkke bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen njaboot gii ñu am nag ñooy lenn itim nag ci bi ak jarbaati alxuraanul karim waajuróom nag sëriñ Tuubaa xaadim rasool nag la ko jébbaloon seexul xaddim itam nag moo ko dalal alxuraanul karim ginnaaw bi nag la ko maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru miy waajuróom jébbal nag sëriñ Soose Njaay waaye mukkaliwul alxuraanul karim nag ci loxoy sëriñ Soose Njaay maam Cerno miy waajuróom nag jëlaat ko jébbal ko nag sëriñ Mérina Sill ci dëkk boobu nag di Mérina Sill sëriñ Mérina Sill nag moo ko jox nag ku ñuy wax sëriñ Moor Xari Sill mu wéyal fa nag am njàngam ginnaaw sëriñ Moor Xari Sill ci dëkk boobu nag di Mérina na des itam nag di Mérina Syll ñu jox ko fa nag ku ñuy wax Serigne Modou Asta Diop mu wéyal fa nag am njàngam ci ëttum maamam nag di Mérina Syll nag la jànge alxuraanul karim nag ak nag lii di nag di xam-xam mu nekk nag ku géejoo géeju nag ci wàllu alxuraanul karim ak lii itam nag di xam-xam ba tax na nag mbooleem nag axlu mbàkke gi nanguloon nañ nag Serigne Mouhamadan koso nag am njàngam ak itim nag ak amub xam-xamam laataa muy jóge sax ci suuf soosu nag di Mérina Syll di ñibbisiwaat nag ci loxoy waajuram nag maam Cerno Ibrahima nag ci dëkk bii nag di daarul muxti dëkk bu soriwul dara nag Médina Sill di tey ba Njaañ amoon na fa nag am mbooloo nag mu ko gëm ngir Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag ak maam na nag miy waajuram ba tax na itam nag taalibe yi nekkoon foofu sàkku woon nañ nag ci Sëriñ Muhammadan Koso ngir ñu defaral ko fa nag ak kër mu dëkk ak ñoom ginnaaw bu Sëriñ Muhammadan Koso nag ñëwee nag ci waajuram maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke Ndaambal Daaru nag wax ko ko maam Ceerno nag doon na ko xamal ne lool itam nag munta nekk dëkk bee nga xam ne ni daal sama mag ja Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag moo ko joxoon ndigal nag ngir ma nag ci koso bari na ñoo xam ne nii nag yabal naa leen fa waaye mënuñu faa nekk nag ndax metti waaye nag dëkk boobu nag di kosoo su ma sañoon itam nag nga dem fa nag nekkal ma fa sëriñ Mouhamadan koso itam nag di ko xamal ne su ma ci amee sa ndigal ak itam nag sa njàppandal danaa fa mën a dem nag toog fa maam na Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru itam nag bégoon na ci lool doon ko xamal itam nag nag dëkk boobu ci 1923 nag laa ko sanc dëkk boobu itam nag mooy ndigal itam nag lu ma sëriñ Tuubaa mujjee jox nag ci sancub dëkk moo tax itam nag dëkk la itam nag sama ñaan da nga am itam nag sama njàpp ndal bisub keroog nag bi sëriñ Mouhamadan waxee maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ne mën naa faa dem dafa fekkoon maam Cerno tëdd waaye nag dafa daal di jóg toog di xamal nag sëriñ Mouhamadan koso dinaa la dénk nag laataa ngay dem nag ci dëkk boobu nag di daaru Munir ndénkaan li nag mooy Mouhamadan bu la ñëpp doon jox nag te liggéeyoo nag doo am dara bu la ñëpp bàyyi woon itam te ngay liggéey du la wàññi dara yow mal xiyaam gën jëmitim nag diwoo ma jur du fa jariñ dara soo demee nag ci dëkk boobu nag di daaru na nga sax nag ci liggéey ak jaamu suñu ba tey nag maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru nag mi ngi xamal nag sëriñ Mouhamadan Koso dëkk boobu itam nag sëriñ tubaa moo ma joxoon ndigal tudde ko itam nag daaru Muniir muy këruk aji leeral ji maam Ceerno nag mi ngi doon xamal nag sëriñ Mouhamadan Koso na ko bisub keroog nag bi ma sëriñ Touba Seexul Xadim nag joxee tur wi wax ma loolu itam moom Seexul Xadim nag ma ma doon xamal ne xam nga lan moo tax mu tudde ko këruk aji leeral ji daaru Muniir maam Ceerno nag di ko wax ne déedéet Seexul Xadim nag di ko xamal ne adduna nag day këruk lëndëm liggéey nag mooy li koy leeral itam nag di këruk lëndëm dundam jaamu yàlla itam nag mooy li koy leeral soo eggee nag nga def ko kërug jaamu yàlla nag ak liggéey dëkk bi itam nag li tax nag ma fonk ko kàddu yii nag la maam Ceerno nag waxoon sëriñ Mouhamadan Koso doog koo ñaanal mu ñëw nag ci dëkk bi nag di Daaru mu Munir ñu gën koo xam nag ci Koso Mbàkke dëkk bi nag li tax ñu koy wax nag Koso ab déeg nag moo fa nekk nag ci ginnaaw dëkk ba déeg ba itam nag pël yi nag daa nañ fa nawet si daa fa wëgg itam nag seen jur gi soow moomu ñu daa am nag wala meew moom nag ñu daa ratte nag ci nag yi bari gum daa bari nag moo tax itam nag ñu ko daa tuur nag ci biir déeg ba tuur googu nag ñu ko daa tuur nag ci biir déeg ba moo tax nag ñu daa wax nag déegub kosom ba ndax kosom ci pël mooy tekki soow tuur googu nag ñu fa daa tuur soow meeg meew mi bi maam Ceerno nag sañcee nag fu dara nag déeg ba te tudde dëkk ba nag daaru muniir bayra pël yi nag ak déeg ba moo ëpp doole nag turu dëkk ba ba tax na nag ñu koy wooyee nag déegub kosom ba da wax dëkk ba itim nag koso waaye koso nag mooy tekki ci pël nag soow lii rek moom moo waral nag turu koso wi turu koso woo itim nag tax na ñu baree baree baree bari nag ci turandooy maam Ceerno itim nag ñu leen di wooyee itam nag maam Thierno nag fonkoon na ko dëkk bi ndax Cheikhul Khadim nag moo ko waxoon itam nag mu sanc ko sëriñ Mouhamadan Koso nag bàyyi ko nag ci dëkk boobu nag di Daarul Moxti ñëw itam nag ci dëkk bii nag di Koso bi mu ñëwee kër ga fa maam Thierno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru nag defaloon boppam ci biir kër googu itam nag la nekk ànd ak ñi nga xam ne nii itam nag maam Thierno Ibrahima Faati Mbàkke daaru itam nag moo leen dëloon itam nag dëkk ba ñoom nag ñu di ko xoolee maam Thierno maam Thierno itam nag ñëw na ñaari yoon itam nag ci dëkk ba di ko seet si nag moom sëriñ Mouhamadan Koso moomu fa mujj nag mooy ci atum 1939 dëkk boobu nag di koso nag di daaru muniir am na ñeneen itam nag ñu joxe woon tur nag wudul daaru muniir am na nag ñu wax ne maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru nag toog na itam nag ci daaru moxti am nag am naaru gànnaar nag bu ñëw di ko xamal ne daal dama gént nga nekk nag ci sa tool yooyu ñu tudde nag riyaadu saalihiin maam Cerno nag daal di këyit wan ko nag daan ko nag nii la ko Sëriñ Tuubaa tudde woon na itam nag ñu wax ne nag daaru muniir nag la tudd waaye daal lu wér te wér daal mooy dëkk ba nag sabab bi nag mi ngi jóge nag ci déeg nag bu fa nekk boo xam ne nii itam nag pëli daa fa nawet daa fa tuur itam nag am soow soow moomu ñu daa tuur nag ca déeg ba moom lañ doon waxe nag déegum kosom ba déegu kosom boobu nag moo dem nag ba làq nag bépp tur nag bu buñ ko mënoon a tudde dëkk boobu itam nag sëriñ Muhammadan nag bënn na fa teen taxawaloon na fa itam nag daa daaray xam-xam ak alxuraanul karim ñu bare bare bari itam nag jaar nañ fa ñu mën caa ràññee sëriñ Cheikh Khady Mbacke mi nekkoon ñetteelu xalifa maam Cheikh Ibrahima Faati Mbacke ndaamal daaru ci bi muy jànge nag ci dëkk boobu itam nag di Mérina Syll ko yóbbaale woon nag ci dëkk boobu itim nag jàngalaale ko fa nag sëriñ abbas mbàkke mi toog nag toogaayu maam Cheikh ibrahima fati mbàkke ndaamal daaru itim nag sëriñ mouhamadan koso itim nag moo ko jàngal sëriñ amsatu mbàkke ibnu maam Cheikh ibrahima fati sëriñ basiiru mbàkke anta ñang moom maam Cheikh ibrahima fati mbàkke ndaamal daaru sëriñ xalil mbàkke moom maam Cheikh ibrahima fati mbàkke ndaamal daaru sëriñ moustapha may moom sëriñ muudu abib moom maam Cheikh ibrahima fati mbàkke ndaamal daaru sëriñ moustapha absa moom sëriñ muudu awa balla mbàkke moom maam Cheikh ibrahima fati mbàkke ndaamal Fall Daaru sëriñ Bas Assu Lo Mbàkke bu Daaru Muxti sëriñ Cheikh Assu Jóob Mbàkke nekkoon doomu sëriñ Abdul Xuddoos moom maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal Daaru sëriñ Cheikh Assu Fay Mbàkke moom sëriñ Moodu Abib Mbàkke moom maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal Daaru sëriñ maam Ceerno Mbàkke moom sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke sëriñ Moodu Muxtaar Mbàkke moom sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke sëriñ Xaadim Mbàkke docteur moom sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke sëriñ Abibu Mbàkke moom sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke ba tey sëriñ Muhammadan Mbàkke ñi mu jàngal nag ci dëkk boobu itam nag di Koso ñu man cee ràññee sëriñ Abdul Akim Mbacke moom Cheikh Mamadul Basir moom Xaadim Rasul sëriñ Siidi Mbacke moom sëriñ Touba Cheikh Abdul Ahad Mbacke sëriñ Fallu Mbacke moom sëriñ Basiru Mbacke moom Xaadim Rasul sëriñ Isaaxa Mbacke moom Cheikh Mamadul Basir moom Xaadim Rasul sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Abdul Ahad Mbacke sëriñ Abdou Samad Mbacke moom sëriñ Abdul Ahad Mbacke sëriñ Cerno Mbacke Gelongal sëriñ Moodu Antamar Mbacke sëriñ Moustapha Mbacke Baara sëriñ Moor May Mbacke sëriñ Maam Balla Mbacke moom sëriñ Abdou Dia Mbàkke Duyooli sëriñ Abdourahim Diop di xalifa sëriñ Masamba Diop Saama sëriñ Amdi Buso moom sëriñ Mbàkke Kandi Buso sëriñ Maamun Buso moom sëriñ Mbàkke Kandi Buso sëriñ Sohen bu Mbàkke Koso sëriñ Seexuna Lo bi nekkoon xalifa sëriñ Maxtaar Binta Lo sëriñ Abdou Samad Buso moom sëriñ Mor Roqaya Buso sëriñ Mbay Mbàkke moom sëriñ Abdoulahi Mbàkke borom dër bi sëriñ Siidi Mbàkke moom sëriñ Abdoulahi Mbàkke borom dër bi ak ñu takkoo takkoo takku nag ci yoonu murita ñooñ ñu leen tuddal nag tam gii ko sëriñ Modou Makhtar Diop way ma ngi leen cay lim nag par benn benn di wax itam nag solo soo xam ne nii nag sëriñ Mouhamadan Kosso mii nag amoon na ko ci jàngale nag gum daa jàngale nag ci dëkk boobu itam nag di Kosso te itam nag ay doomi maam Thierno nag ak i sëtam itam nag jaar itam nag ci loxoom ak lenn itam nag ci sëti Xaadim Rasuul yi taxawaayub sëriñ Mouhamadan Kosso daal ci jàngale lañu ñu sëriñ Modou Makhtar Diop nag doon xamal ci xasida googu nag mu jagleel doomu maam Thierno Ibrahima Fatim Mbàkke ndaamal daaru bi itam nag ñu teewlu ko. tey ma jug ci mbër mu ci jàngale jàngale tut naa ci xamle ay mbiram mooy seexi dan borom koso saa yéene lay doxee ka wax ci ay mbiram de xooma sax dara ci moom lu feeñ lu tax baatin baraw na waa koso li jànge biir daarul koso lay jëm lu tuuti wax ko tey ngeen xam ne kii kenn du moom foo mën a jànge wek koso se xam sa toog rakkam basiir way jur wa soxna ante ñang xam nañ béréb bii du koso jaajëfe seexi dan koso sëriñ subayru waaqi dam faati mbakke waxaliit jar nañ ci daara ji koso bur na fay borom koso seex mi xadaat mi am texe wa seyxi xabbaas mi nu xam ñoo sonni xam-xam fa koso yi sanga xam me fuy koso seex dan mu sëñ muudu awa balaag basiiru astuloo mi ñëpp xam te naw doktoor bi xam na waa koso maa bëgg dante kañ ko ngir la yàlla digle mooy mbiram li ca la sax ba xëy na mes way jur ya bég nañ ci koso seex dana fandaañu dëkk ak ndég mente yaag lu doy kéwél tàngoor wutar ñuy dëkk mar kii am na jom am koso kii sëriñam di way juróom lay diglu lum ko ma wal na wër koso bii dëkkaleer te mooy koso cheikh moustapha xab samigam baayam di sërriñam mi am la gën fa daaru ngir jomam xam mene baay ba daan koso rakkam jafallu asta jeey jom la ku ñëw mu taal nga dem ca leeri yàlla maa ko naw duy na ca leeri dan koso fàttalikul xabibullah cheikh xastuloo mi lay kamaal seen bàyyi leen yóbbu koso ñu duy ca leeri dan koso maam cer na jàmbaar la ju wér rakkam ja moxtaaru ko roy jàmbaar nga ëmpal ko ko xam ñoo jàng fi daarul koso day digle jub bi jub maa bëgg cernoo ki rakam ñi xàmme nañ boroom koso rakam jaxaat yéex ko gëm ba lum ko sant muy mbégam du daw du denc kii texe kàngami xam nañ fa koso Cheikh Moustapha mayum koso ak sayqi xastu fay koso ñi lépp luñ la wax koso lu sax la ñooy boroom koso Cheikh Moustapha rafet jukko moo xëcc liy kuraab koso mu door a jàll sañ ci ba muy xarafaati mooy koso Cheikh Mor rakam xam na koso moo dëkke tawe sax ci gëm yàlla ak rasuulu def iteem ci lépp lool jëm na koso Cheikh Faati billaahi ñi xamoon ko so seex faati fal mi jur ñi le bég na ci sayxi dan ko so seex muudu mbàkke it ca cala seen mbokk yéet ñëw na ko so luñ jëf ndigal lañ ciy jëlee ñoo bokk xam lu fay koso seex muntaxa mu sëñ xabib ku yàlla tàllaaki mbiram gëm naa ko sax te gisuma jëmmam ji ngir borom koso seex astu jóob ñëw na fi ak moodu mbakke mi fi ne waaye jur wa seex abdul xudoos mooy say xidan borom koso baay seex mi doon xalifa tey taaliba daaru yépp tey jaar na fa mag ja xam ngërëm moo xam lu wér fa dan ko loolu nag mooy xasida gi ko moodu maxtaar jóob nag defal te biir daara jooje itam nag kuñ doon wax nag bàyyi sëriñ jaxate itam nag na fa itam nag di nag des nag ci dëkk boobu nag xam ne nii nag waajuram maam Thierno Ibrahima Fatim Mbacke ndaamal daaru itam nag moo ko fa dël ci atum 1933 ci dëkk boobu itam nag la wéy nekk ba ci atum 1976 mu génne fa àdduna mu nekk nag ku yoonu murit nawloo waaye ku yoonu murit yi nag jox cër rawatina nag ñi mu bokkal maam Thierno Ibrahima faati Mbacke ndaamal daaru alxuraan ji nga xam ne nii nag ak xam-xam ji nga xam ne ni itam nag mi ngi ci moom ba tax na itam nag bépp xam-xam nag bu waaye masaa am soo ñëwee nag ci sëriñ Mouhamadan Koso da nga yëg ne nag sa xam-xam nag bariwul ndax nag jëmm jooju itam nag xam-xam bu mu am tax na sëti Seexul Xaddim yu baree baree baree baree bari nag ci yu ñu leen limal moo leen jàngal na nag ci dëkk boobu itam nag di koso mu nekk nag ko relation nag ak mboolem njabootu Seexul Xaddim gi ba tax na itam nag ñu baree baree bari itam fekk nañ ko itam nag ci dëkk boobu itam nag di koso moo xam nag mbooleem njabootu Seexul Xaddim gi ay turandoo itam nag am na ko itam nag ci ëttub Seexul Xaddim bi Sëriñ Tuubaa Cheikh Abdul Ahad Mbàkke tudde na ko doom Cheikh Murtada Mbàkke ibnu Xaadim Rasul tudde na ko doom Sëriñ Seexu naa loo moom sëñ Mokhtar Bintaloo itam tudde na ko doom sëriñ Abdou Samad Bousso moom sëriñ Mor Roqaya Bousso tudde na ko doom sëriñ Maamun Bousso moom sëriñ Mbàkke Kandi Bousso tudde na ko doom sëriñ Sohaybu Mbàkke Koso tudde na ko doom sëriñ Moodu Awa Balla moom maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke Ndaamal Daaru tudde na ko doom sëriñ Cheikh Xadi Mbàkke moom maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke Ndaamal Daaru tudde na ko doom sëriñ Basiiru Mbàkke Anta Ñang moom maam Ceerno Ibrahima Faati mbakk Ndaamal Daaru tudde na ko doom sëriñ Xalil Mbàkke moom maam Ceerno tudde na ko doom sëriñ Mustafa May moom sëriñ Moodu Abib Thierno tuddee na ko doom sëriñ Cheikh Assou Faye moom sëriñ Modou Habib moom maam Thierno tuddee na ko doom sëriñ Bassirou Mbacke Abdou Khoudous moom sëriñ Abdoul Khoudous Mbacke moom maam Thierno tuddee na ko doom sëriñ Abdourahmane Mbacke moom sëriñ Abdoul Khoudous moom maam Thierno itim nag tuddee na ko doom ak lu takkoo takkoo takku nag ci waa Mirina Sill di dëkkub nag waajuram ñoom itim nag tuddee nañ ko doom Mouhamadan ya itim nag bari foofu mu nekkit nag ku yoonu murit bëgg ku njabootu xaadim rasool gi nawloo waaye ku mbooleem itam nag bàyyi woon xel leen itam nag ci sëti Cheikhul Xadim yi itam na woon nañ nag seen waajur woowu itam nag di doomu maam Ceerno ji ñu man cee ràññee nag digganteem ak sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke diggante la nag bu yaatoo yaatu diggante li itam nag bu yéeme yéemee ndax sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke bàyyi ko na Touba nag ñëw kaso itam nag ay yoon yoon itam nag di seet doom yi maam Ceerno jooju ba tax na itam nag tudde na ko doom foboon na ak njabootam itam nag jox leen sëriñ Mouhamadan Koso itam nag ngir ñu jànge fa ñu mën cee ràññee nag kii toog ab toogaayam di sëriñ Sidi Mbacke Abdul Ahad sëriñ Fàllu Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul moom itam nag ku jaxasoo woon nag sëriñ Muhammadan Koso la sëriñ Fàllu nag ku nawoon itam nag doomu maam Ceerno Mbàkke bii la ba tax na daana wax ne sëriñ Muhammadan fees na dell nag te déng déngiwul sëriñ Basiiru Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul itam nag kasaalika moom itam nag ku jaxasoo woon nag sëriñ Muhammadan Koso la foboon na itam nag ak njabootam jébbal ko sëriñ Muhammadan Koso itam nag ngir ñu jànge fa ñu mën caa ràññe nag sëriñ Abdul Akim Mbàkke bisub kero sax bi ko sëriñ Basiiru nag di jox sëriñ Abdul Akim Mbàkke mi mel ne daal sëriñ Mouhamadan dama bëggoon nag Abdul Akim mii sëriñ Touba nag nekk nag ci moom ku jaxasoo woon nag sëriñ Baara Xuréja Mbàkke la ba tax na sëriñ Baara Xuréja Mbàkke sax bi mu koy jox doomam sëriñ Muudu Baara Xuréja mi ngi koy xamal ne daal sëriñ Koso wala sëriñ Mouhamadan Koso yow waroo am réew na ngir ñu xam la dangaa toog fa nga war a toog nekkit ca la nga war a nekk nag ba ñëpp ñëw xam la moo taxoon itam nag ma fab sëriñ Muudu Mbàkke mii nag jox la ko ngir jikko ji nekk ci yow nag nekk nag ci moom ku jaxasoo nag sëriñ Baara Xuréja la moom Maam Moor Jaara ku jaxasoo woon nag sëriñ Touba Cheikh Abdul Xaadir Mbàkke la ndax daana nettali ne na wóllëreem ak sëriñ Tuubaa Cheikh Abdul Xaadir Mbàkke mi ngi sababoo ci bis bu mu jóge woon Mérina Sill ñëwoon Daaru Moxti nag ci maam Ceerno bi mu ñëwee nag la fa fekk nag sëriñ Tuubaa Cheikh Abdul Xaadir Mbàkke kenn ku ne nag dindi nag sab jaaro nag ci sab loxo takkal nag sa moroom mu daa wax ne nag kóllëreem ak sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke na nag kóllëre gu yàgg-yàgg la booba itam nag maam Ceerno fekkee na ko ku bëggoon maamam la nag maam Mor Anta Sali Mbàkke ab nag di sëriñ maam Mor maamam nag maam Mor Anta Sali Mbàkke itam nag la ko tuddee loolu nag sëriñ Modou Awa Balla Mbàkke la bi muy tabax nag jàkkay daaru muxti ji mu ngi doon xamal nag leen itam nag ci njabootu maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ji di leen wax ne daal demuk sëriñ Mouhamadan Koso gi daal lu ko metti la ndax bu fi sëriñ Mouhamadan Koso nekkoon ak jaaxleem itam nag du metti lool loolu itam nag tax na sëriñ Modou Awa Balla Mbàkke itam tudde na sëriñ Mouhamadan Koso doom lu tax takkoo takkoo itam nag ci njabootam itam sëriñ Mouhamadan Koso itam nag la ko joxoon soxna Maymunatu Mbàkke sëriñ Mouhamadan Koso itam nag tudde na ko doom soxna maam Buso Mbàkke moom maam ci wax mi Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru sëriñ Mouhamadan Koso itam nag tudde na ko doom ak maamam nag soxna Faati Isa Diop ak lu takkoo takkoo takku itam nag ci doomu sëriñ Tuubaa Seexul Xadiimi ak ay doomi baayam nag di ñim séqal nag maam ci wax mi Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru mu wéy nag des nag ci dëkk boobu di Koso ci ndigalul waajuram ci li atum 1976 ñu takkoo takkoo takku itam nag defar na leen itam nag ci dëkk boobu itam nag di koso ba ko fa waajuram nag maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru itam nag di koso bi sëriñ Mouhamadan koso itam nag ñëwee ci dëkk boobu itam nag di koso dañoo wéy nag topp nag ci ginnaaw doomu maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru bi te ña nga xam ne itam nag nekkoon nañu itam nag ci dëkk boobu di koso ak sëriñ Mouhamadan koso ñu Guèye sëriñ Mor Ndiaye Koso sëriñ Mor Dieng sëriñ Barama Ndiaye sëriñ Fallou Silla sëriñ Modou Dieng Xabaan ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñu fa nekkoon dëkk boobu itam nag di Koso sëriñ Mouhamadan Koso itam nag bënn na fa ab teen defoon na fa jàkka joo xam ne itam nag mbooleem waa dëkk ba itam nag ci la ñuy jaamu suñu boroom jàkka jooju itam nag tax na itam nag ak njabootam fayee nañ ko jumaa joo xam ne ni itam nag jenn la ci mbooleem tundu Koso wi dëkk boobu itam nag di Koso maam Ceerno itam nag da koo bëggoon Seexul Xaddim moo ko dem fa moo tax itam nag ba mu fay yebal sëriñ Mouhamadan Koso mi ngi koy xamal ne dëkk boobu itam nag di Koso yebal naa fa ñu takkoo takkoo takku waaye itam nag nanguwuñ faa tooka ndax metti waaye Koso waaye dëkk boobu itam nag dama koo fonk sama mag ja Cheikhul Khadim waxoon na ma fa itam nag lu takkoo takkoo takku su ma sañoon itam nag man maa fay nekk nag ba génne fa àdduna waaye comme mënuma faa nekk itam nag damaa bëggoon nag nga dem toogal ma fa loolu itam nag moo fa yóbbu woon sëriñ Mouhamadan Koso sëriñ Mouhamadan Koso muy génn nag àdduna ci dëkk boobu ko waajuram dëeloon nag di kosoo ci bisub ajjuma juróomi fan nag ci weer wi nag di maamu koor ci atum 1396 nag ci gàddaay gi ajjuma juróomi fan fani maamu koor ci atum 1396 nag ci gàddaay gi dëppoog nag muy vendredi 4 juin 1976 vendredi 4 juin 1976 ginnaaw bi nag lañ ko yëgal ki toog nag toogaayu waajuram di sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke ak itim nag ki toogoon toogaayu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul di sëriñ Tuubaa Cheikh Abdul Ahad Mbàkke sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke moo sàkku itam nag ci rakkam sëriñ Touba Cheikh Abdoul Xaadir Mbacke ngir mu jullee nag doomu maam ci Ceerno Ibrahima Faati Mbacke ndaamal daaru boobu ñu jël nag sëriñ Mouhamadan Koso indi ko nag ci dëkk bii nag di daarul muxti jébbal ko fa nag boroomam keroog nag bi biñ koy jullee nag ci dëkk boobu nag di daaru muxti mbooloo mu takkoo takkoo takkoo takku nag ci doomi sëriñ Touba Cheikhul Xadim nag yi fi newoon ak mbooleem nag njabootug maam Ceerno Ibrahima Faati Mbacke ndaamal daaru gépp ñoom ñëpp itam nag fekkee nañ ko ginnaaw ko jébbalee boroomam nag ba laataa nag ñu koy ñaanal xaritam sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma mi nekkoon nag doomu cheikh mamadul moustapha mbàkke itam nag ñëw na itam nag ci dëkk boobu nag di koso ngir jaale si nag xaritam ba wala réew wa sëriñ mouhamadan koso soo delloo nag ci marsiya bi nga xam ne nii nag sëriñ xaliil mbàkke moom sëriñ moustapha absa moom sëriñ moodu awa balla mbàkke nag moo ko ko way mi ngi way xasida gi nag ci atum 2003 mi ngi sukkandiku nag ngir way xasida gi ci nettali nag guñ ko nettali nag jaar jaaru sëriñ mouhamadan koso ak màggal googu nag ñuy amal jagleel ko nag sëriñ mouhamadan koso ko sëñ xalil nag mi ngi wax nag ci biir xasida gi ginnaaw bu mu ko ubbee leeral itam nag li tax nag mu way xasida gi mi ngi barkeelu nag ci bis boobu nag ñuy amal nag ca koso ngir jagleel ko nag doomu maam Ceerno bi mi ngi xamal na nag dem koso nag lu war la ndax ziyaare ji nag jeexantalu sëriñ Muhammadan koso ziyaare itam nag mbooleem njabootu sëriñ Muhammadan koso bi rawatina nag ki ko wuutu nag di ab xalifaam sëñ xalil nag mi ngi bind nag marsiya bi jagleel ko nag ci nettali nag guñ ko nettali nag dunduk sëriñ Muhammadan koso ki ko nettali nag mi ngi koy xamal ne sëriñ Muhammadan koso daal ku baax woon ku sellu la woon ku daa jaamu suñ boroom la woon ku daa jàngale itim nag lii di alxuraanul karim nag la woon ku ragaloon suñ boroom la woon ku dëdd woon àdduna la woon waaye dëddu àdduna gi nag mi ngi ko jagleeloon nag ci moytu nag ay tooñ ak it nag di jaamu suñu boroom ku daa yar la nag ak di jàngale ku yar itim nag mbooloo mi ñu ko booleeloon la ku jàngal itim nag ñu baree baree bari la ci yar ak jàngale itim nag la nekkoon itim nag ci dëkk boobu nag nag ba tey mi ngi wax ne sëriñ muhammadan koso ku yeesalaat koso la nag ko te ba nga xam ne nii nag sanc waaye nangoo dem koso itam nag yombul te jamono la nangoo dem koso nag toog fa ci boo xam ne itam nag ndox yombu fa aw yoon itam nag yombu fa lu jëm ci bakkan itam daal amu fa mu nangu faa toog nag ngir jaamu suñu boroom jamono yii nag muy nekk koso nag amul kenn nag ku ko fi daa wéttali waaye nag mu doyloo suñ boroom rek di ko sàbbaal di wéttali ko alxuraanul karim itam ak ñi muy jàngal noonu mu nekkee woon nag ca koso la mu fa jëlee nag mooy ñu baree baree baree bari nag jóge nañ ci daaraam nekk nag ay kaam fóori ñii nag nekk nag ay boroomi xam-xam xam nag yu kenn munta ñàkk ràññee ci biir réew mi mu ne nag loolu nag tax na doomu maam Thierno bii nag xol yépp nag maase nañ sedd ci képp ku nekkul sax doomu maam Thierno nag te xam sëriñ Mouhamadane Kosso itam nag sa xol sedd na itam nag ci moom ma ngay ñaanalaale nag doomu sëriñ Mouhamadane Kosso bi nag di sëriñ Mamor Kosso ak mbooleem nag ay rakkam suñ boroom nag sàmm leen nag te aar leen te bàyyi leen nag seen barke waajur bi nag lu yaatoo yaatoo yaat a Cerno boobu ñu teewlu ko inna nazuuru sayqa fi nafaxaatihi wa jamica awlaadin lahu wa abraari inna nazuuruka yaa xalifata jaddina fi xaflatin uqidat lahu biddaari qad qiila li kaana alhumamu mucalliman mutabaxiran mutajanniban can caari wa kada ataana annahu taraka duna xawfan min al aathaami wal akdaari wa kasa ataana annahu rabba alkathira min alkibaari ala altuqa وصغار ولقد بنى كسر حينما اشتد البنا من نقص ما في القطر والآبار ولقد بنى كسر حينما رفض البنا فيها الشيوخ فكردوا نفرار ولقد بنى كسر حينما رفض البنا فيها الشيوخ فكردوا نفرار ولقد بنى كسر حين ليس أنيسه فيها سوى التسبيح والأذكار وسوى المريدين الذين تعلقوا بديوله طلبا رضا alxafaari walida taxaraja min majalisi daarihi fawjun min alulamaai walaxbaari laa shakka anna cheikha ibrahima qad qarat lahu aynun bilibni lbarri fa atwala umraka rabbuna xatta tuxaqiqa ma nawayta li xidmati lmibraari wakadaka umra jamica ixwatikum maan kalmustafa وكذلك المختار ثم الصلاة مع السلام على النبي والآل والأصحاب والأخيار الأنهار ما دامت الأنوار تنزل في ضري حته وتنزل هكذا في الدار ما ay xalifaam nag nii la tëdde moom sëriñ Mouhamadane Kosso li ko dale nag ci àjjuma ñeenti fan nag ci mois de juin ci atum 1976 kam faye woon nag Mamor Anta Sali Mbàkke di sëriñ Mamor Mbàkke Kosso moo ko wuutu ci 1976 ba ci àjjuma 24 avril nag 2015 avril 2015 nag ba nëgëni ka sëriñ Mouhamadan Koso faye woon nag waajuram di sëriñ Maxtaar Sàmba Diop ñu gën koo xam nag ci sëriñ Maxtaar Mbàkke moo toog itam nag ñaareelu xalifaam ci atum nag ba nëgëni ñu koy ñaanal nag suñ boroom guddal aw fanam nag te wéral ay cëram te yàggal ko itam nag ci toogaayu waajuram boobu nag di sëriñ Mouhamadan Koso ak mbooleem nag ñu mu séqal nag sëriñ Mouhamadan Koso ñépp sëriñ Mouhamadan Koso itam nag am na bis nag buñ koy fàttaliku ci liñ tudde ak màggal bis bii mu génnoon àdduna ñi ngi koy fàttaliku ci wàcceem kaamili alxuraan ngir jagleel ko nag seen waajur woow nag di sëriñ Mouhamadan Koso am na beneen bis itam nag bu ñu koy fàttaliku nag ci ñu tudde ak màggal ñu koy amale itam nag ci dëkk boobu itam nag di Koso bis bi itam nag sëriñ Mamor Koso moo ko daa amal bis bi itam nag amul bis fixe itam nag ci at mi heure bu ci njaboot gi waxtaanee ba juboo itam nag lañ koy amale ci dëkk boobu nag ñu mujjee gis nag sëriñ Mouhamadan Koso te waajuram maam Cheikh Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru itam nag daloon ko fa muy daaru Munir ñu gën koo xam nag ci Koso màggal gi